taxawu di ko toppatoo mën nga ni sa temps bi ëpp ci sa journée bi ci moom nga koy paase cofeel boobu bu ko doom amee ci way juram mën nañu wax ni nit kooku nit ku baax la parce que yàlla daf ni waqadaa rabbuka allaa taabudu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana soo paree ci man yàlla li ma la sant na nga jublu ci say ñaari way jur def warte fii war sa digganteek ñoom moom nag ku fonkoon way juram la nekk jàmbaar ñu xam ci moom fulla ak fayda ak liggéey ak dundee ñaqam ku mel noonu nag wax dëgg yàlla bu ñàkkee way juram daañu ko masaw daañu ko ñaanal yàlla yàlla yéegi ko ci barzaqu yonent bi sallallahu alayhi wa ci dëj lu ci mel ni bi nga xam ne dafa génn àdduna tey lan la soxla. li mu soxla mooy ñaan jàngal ko Alquran def ay salaatu ala nabi def ay azkar astaghfirullah yi bari ñu bañ ko def rek programme boo xam ni dañuy daje wax waxu àdduna après mu jeex. parce léegi dëj yu ci bari boo demee da gis ni nit ñi ba tey dese na noo xam li tax ñu daje fi li gën a am solo mooy ñaanal ki faatu parce que ki dem moom soxlawul dara dara ci ñim fi bàyyi lu dul ñu ñaanal ko nañuy gën a bàyyi xel loolu muy fii muy feneen ak feneen message la boo xam ne dañ koy fàttali képp koo xam ne rek yaa ngi jug pour jaale ji nit nga amee comportement bi nga xam ne moom la lislaam bëgg mooy boo demee boo mënee jël sa kurus nga jël sa kurus ñaanal ki nga xam ne moom moo tax ñu daje fi Oustaz euh, ñuy dugg si weeru mais xanaa li yonent bi waxoon rek suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ku gis ku la doy mu ne weeri feeñ na nga woor ku gisagul ku la doy nga fa woor. du yomb de problème boobu moom du neex a régler ci senegal parce que ba tey am na ñu woor tey suba am nañu nar a woor parce que problème bi mooy kooru Sénégal ci date lañ koy jàpp ñun fi mu ne nii koo laaj deux mille vingt cinq xam na koor gi kañ la parce que ba nga dalee dégg la onze booba yaakaar naa yàgg na de la onze mooy koor gi mais ñun sukkandiku ci gis ku nu doy rek mu nu weeri feeñ na ñu woor mais daal day doon loo xam ni rek question de confiance la ki ngay gis daf lay doy ki la koy wax daf lay doy bu la doyee nga xëy um bu la doyul nga bàyyi ba beneen yoon nga wóor. am bari naan xanaa ñoom nekkul Kër Massar gi man Fall Ndiaga Yaaram mii de ci waa Mardi laa bokk.